dañ fay daje ngir def réunion conseil d' administration parce que maanaam hôpital bi dafa am benn kuréel boo xam ne bi moom moo ko jiite ñu koy wax conseil d' administration ñi fa nekk président nommé leen par décret ñuy saytu liggéey bi nga xam ne moom la direction bi di def léegi nag euh, daanaka ñetti weer yu nekk dañuy daje ci at mi dina am ñeenti daje yoo xam ne dañ koy daje ngir mën a saytu li nga xam ne moom la ñuy liggéey daje mi ñuy daje tey nag mooy ñaareel bi ci at mi. Eh, boobu nag day xayma juróom benn weer yi weesu maanaam janvier ba nëga ni lan la fi hôpital bi liggéey ci wàllu ay eh, lu mu war a dajale ci xaalis ak lu mu war a def ci ay dépenses waaye bi ko say saytoo xayma ko ñoom ci seen biir ànd nañ ci ni li nga xam ne moom la hôpital waroon na lijjanti war ko liggéey ci wàllu xaalis liggéey na ko li nga xam ne tam waroon na ko def ci ay dépenses tam mi ngi koy def te amul benn jafe-jafe kon nag loolu tam ñoom ñu ngi ci eh, jaajëfal ki nga xam ne mooy njiit li di ci jaajëfal ñi ànd ak man waaye di ci jaajëfal aussi ñi nga xam ne ñooy personnel bi nekk takku di liggéey guddeeg bëccëg suba ngoon pour que loolu mën a nekk ndax tey seen mission mooy fexe ba ñi fiy ñëw ci hôpital bi am ay jafe-jafe wér-gu-yaram maanaam ñu def ci sunu kéemte lay kàttan. maanaam booy xool hôpital bi ci wàllu spécialité médecine ak spécialité médicale daanañ daanaka am nañ ci euh, spécialité yu nekk am na fi ba mu des peut neurologie. Euh, dermatologie aussi euh, ki fi nekkoon dem na waaye am na kenn ku fi ñëw par altine suñu sañoon ñu am koo xam ne ki dafay toog te am na sax kenn ku ñuy waa ministère war envoyé mu nekk interne moom dina fi toog juróom-benn weer. boo demee ci spécialité chirurgicale aussi li nga xam ni mooy euh, peut-être neurochirurgie moo fi manqué woon te léegi am nañu médecin neurochirurgien peut-être anatomie pathologique moo des maanaam kuy liggéey ci wàllu ay autopsie ak yu demee noonu. yooyu xëy na mooy manqué te looy itam am na kenn koo xam ne ki mi ngi def formation xëy na su yeggalee fii ak déwén dina mën a ñëw ba nekk ci hôpital bi su ko defee ay travail autopsie wala ay anatomie pathologie yooyu mën a nekk loo xam ne bi luy mën a jàpp na lay doon bu ñu sañoon tam yenn médecins yi ñu doublé ko ndaxte maanaam euh, ñiy wut paj mi daye bi ñu yegg day toll foo xam ne fii léeg-léeg kenn kese du ko mën a taxaw faaw mu nekk ñaar wala ñett spécialistes yoo xam ne bi dañuy bokk liggéey bi su ko defee liggéey bi gën a mën a jaar lépp système la te biir Touba euh, dëkk bi ni muy màggee euh, gaaw na gaawee boo xam ne bii maanaam ñetti hôpital sax mën nañu fee bañ a doy ba tax na bu ñuy euh, tabax beneen tam loolu day nekk ngëneel ci ñëpp parce que dina tax ba maanaam li ñun toggoo ci wàllu liggéey mu am leen loo xam ne bi peut-être dina ñeneen ñu koy def su ko defee ñun liggéey bi ñu koy def ak def bi ñu koy def mu nekk def bu gën a baax def xam ne mooy gën a nekk qualité parce que liggéey itam am na waaye liggéey itam da nga ciy boole qualité waaye bu dee yow léeg-léeg liy ñëw ci yow ci ay malade yi faj si dañuy yegg benn lim boo xam ne daanaka yow doo amatil foo fenn foo mën a noyyee wala foo mën a dem ba léeg-léeg suñu amee feneen mën a jël benn partie ci liggéey boobu itam day tax liggéey bi gën a ñoŋ te du wàññi ci li nga xam ne moom nga war a def dara conseil d'administration bi suñu boroom defal nañu sutura ba maanaam li nga xam ne moom lañ fay yóbbu ci ay liggéey di leen ko won lu bëri dañ koy rafetlu te du kenn kese moo koy rafetlu waaye ñoom ñëpp daanaka ñooy booloo maase ci lii ànd nañ ci te ñoom itam ñu ngi rafetlu jéego yi nga xam ne hôpital bi def na ko fii ñaari at yi weesu. ñuy nemmeeku mooy boo saytoo maanaam doxalin hôpital bi am na ay jéego yu mag ñuy def euh, ci wàllu maanaam environnement bi boo xoolee xar kanam hôpital bi am na soppite ci wàllu équipement yi itam ñi ngi jënd ay équipement yoo xam ne hôpital mooy lijjanti xaalis ci xaalisu boppam fexe di ko jënd wat ay équipement pour delloo ko wat ko ci biir. Euh, hôpital bi pour que booy jëfandikoo yi man koo jariñoo maanaam muy ay équipements médicaux muy également ay climatiseurs ak ay lal ak ay équipements informatiques yoo xam ne bi yooyu yëpp li ko tax a jóg mooy fexe ba ñiy ñëw ñu mën leen a taxaw taxaw ñu bu rafet. réunion bi waxtaanee ngeen sa affectation yu yi. <laughs> waaw affectation yi dañ waxtaan nañ ci tuuti rek waaye liñ ci mën a wax tam du bëri mooy maanaam ñun dañu nekk nekk ndawal euh, buur te ñi nga xam ñoo ñu féete kaw bu ñu bindee kéet indi ko. li ñu man mooy jëfandiku euh, jëfe ndigal loolu mais amuñu droit di commenter sax li nga xam ne mooy décision yi jóge foofu jóge ci ministre de la santé loolu amuñu droit di ko def. ngi gërëm bu baax nag ministre de la santé parce que gis nañ taxawaayam ci Touba gis nañ taxawaayam ci hôpital bi ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax ñu ngi gërëm nag aussi ah, président de la république parce que man yàgg naa Touba ndax depuis sëñ Saliou ba léegi maa ngi fi di liggéey ak waa Kër Sëñ Touba yi gis naa fi ko ñooñu teg gis naa foofu itam. fi mu teg Touba waaw ah, barki démb rek la ñuy def benn talifi ci tubaa donc hôpital bi itam yéenam la te tam bokk na ci yu bëree bëree bëree bëri yu muy def ci dëkk bi ah, moom nag dafay nit koo xam ne kii presque euh, dafa xaw dañoo xaw a mel ni moom ñun wax rek la ñuy def waaye du du dañuy liggéey waaye du nekk di wax liggéey bi moom Touba ku fi ñëw da nga xam ni ah, changé na hôpital bi actuellement nii fii ma nekk nii Matlaboul Fawzayni ne ko directeur waxee changé na bu baax a baax a baax a baax li ñuy ñaan kay dañuy ñaan mu yokkal ñu yokkal ñu ko ñu dañ koy ñaan te itam di ko ñaanal di ko ñaanal ndax xam nañ fi mu dëkk dëkk bi waa dëkk bi tam xam nañ fi ñu ko teg parce que ñun ñi nekk ci dëkk bi di liggéey juddoo fi yaroo fi xam nañ kan mooy président Macky Sall ndaxte ndox bi fi nekk ci Touba mu nekkee ministre hydraulique la ko fi defoon màggal yi ñuy màggal ci lañ jógee gëj am ndox ba léegi tali yi ci biir itam maag moom ñoo ko bokk di ko lëy station d'épuration yi ñoo ko assainissement yi ñoo ko bokk di ko liggéey ku xam dëkk bi la ah ku def ci dëkk bi la kon boog ñu ngi koy ñaanal ci doole waa boroom dëkk bi yàlla jàppale ko jàppale njabootam loolu daal laa ci bëggoon yokk di di ñaanal ñëpp na ni ko directeur waxee nag noonu la hôpital bi moom macha allah ku fi ñëw xam ni ñaari ci kanam changé na bu baax ndax te moom taalibe la eh, Baay Faal te day wax waxtaan ak nit ñi te lu mu la wax moom lu mu la wax moo ne ci moom te loolu rek lañ soxla nag ñun donc moo tax moom itam docteur yi ñëpp maase nañ ko ak ñun ñi conseil d'administration Euh, toll naa foo xam ne du ma ko waxal nit lu ko neex lu la wax rek moo ne ci moom affectation yi nag dañu woon duñ ci wax ndaxte ñun conseil d'administration hôpital bi moo ñu ñor hôpital bi avancé te hôpital baa ngi avancé kon bokk dañuy sant di gërëm ñi fi nekk ñëpp ñëpp nag administration bi médecin yi ak ñëpp ñi fi nekk ñu leen di gërëm itam di leen sant jërëjëf